ngeen jëf mbokki wasaare Dakar Midi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax tey ñoo ngi fii taxaw ki nga xamante mooy Ada Fass ki nga xamante ni démb moo doon bëri fête arène nationale ci digganteem ak Tapha Mbeur mais ñu gis démb combat boo xamante ni combat bu neex combat boo xamante am ambiance am biñ tuusee ñoom ñaar stade bi ñëpp bëgg nañ ma bàyyi ko mu nuyoo ñu woy waxtaanee Ada nuyu naa la. ah jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul Jalla al Misbah Karafa maa leen di nuyu mais ñu gis combat bi bi mu taxawee yàgg na corona bi ñëw puus ko sa digganteeg euh, Tapha Mbeur coow li bay woon na ñëpp ne woon euh, Ada Fass que dina ci am sens ñi ne Ada Fass dafa yokk poids ñëpp ne woon euh, Tapha Mbeur moo ci ëpp sens. mais nga ñëw démb tous andi ambiance stade bi maanaam duy ko ba mu fees lan moo loon sa diggante yow ak ay supporters balaa balaa dara de. waaw samay supporters gàcce ngalaama ndax man aw ma ñu dul ñoom ñoom ñoo tax promoteurs yi di ma fay ñoom dañuy sonn ci man. waaw maa ngi ñaan maa ngi soñu tamit ñu gën a taxaw seen mbër waaw dina li si kanam mooy dàq lii du dara li lancement la rek. mais ñu gis démb bés bi ngeen nekk ñaari xale. def noonu stade bi daanaka ay mag sax dañu fay bëre du mel noonu sa diggante yow ak Tapha Mbeur ngeen def noonu stade bi bi nga dugg see gis stade bi fees sa xel ci lan la njëkk a dem. waaw loolu daanaka dafa yombul Tapha jàmbaar la may jàmbaar goxam topp ko man sama gox topp ma. dem moom stade bi koo gis xam na ne stade bi fees na dell macha allah. leen mhm. ngeen ñëw tuus bi. kañ nga ko répété nga lu yàgg wala dafa nekk loo xam dafa nekk ci yow. non tuus bi moom benn jour laa ko répété man. dama fan. damaa dégg. waaw damaa dégg galañ daal. mais ñu gis dafa tuus yëngal stade bi nga jug dem ci say supporters. waaw confiance rek. confiance laa amoon ak gëm lu ma liggéey. du dara mais démb euh, ñu bari yaakaar nañu Tapha mooy xeex. mais bi abi sifflé nga attaqué ko dox ci kawam lan la woon. waaw lu ma liggéey la. parce que laa muy damaa liggéey lépp dañoo pare woon si lépp. mais ñu ci béy dañ ne woon mënoo xeex. non mënu ma xeex loolu man maa amul temps xeex si làmb. man gars yi jàpp daan leen ma sant. Uh-huh. ma dégg ñu na xale bu mënee ba yoon xeex xeex amul ci yoon. waa loolu dëgg lool mooy yoon sax. mais démb sa diggante ak dafa am defe naa ne da ngeen bëri nga kor la. naka la làmb ji demee. ah làmb yi métti woon na. ndax dafa taxaw mu nekk xale am doole. ma dem ma liggéey am doole. ñu léegoo waaw ma coxaas ko mu daw ñëw ma daw jël ko mu uppercut ma door ko uppercut mu siigi ma daw jël ko. mais si ne ko uppercut bi nga ko dóor moo jeexal làmb. waaw ah, dama ko xool dafa sigi bu mu sigee damay am suuf damay daw jël ko. ma daw pakete ko lamba ji lamba ji jeex mais bi lamba ji hmm. euh, ñëpp ne jaajëf. mais lan maa ngi déglu sama encadrement ak sama waa staff. ñoom pour gis bi ngeen nekkee ci digg géew bi Liss Ndiago man maa ngi déglu sama encadrement lu ñu pare ku ñu pare pour bëreeg moom rek man pare naa pour bëreeg moom. waaw Liss ñëwee looyoo. taw ma benn adversaire pare naa pour bëreeg ñëpp laamu laam lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy amateur ak ñi nga xamante ni dañ lay bàyyi waaw kontaan naa si amateur yëpp awaa diaspora waaw kontaan naa si ñëpp. kontaan naa maa lay fay. naka mu. lépp jaam. tout bien. waajalee combat bi ndax xam ngeen adversaire bi ngeen jël muy koñ waaw double champion la di sunu waay di sunu xarit ñu bokk koñ mu dëkk Rëbës ñu dëkk Medina benn la ñoo ne ci géej gi chaque jour ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam rek waaw kese. moom koñ nee na combat bi du yomb ci yéen. non combat benn yombut. muy man sama morom ak keneen ak keneen a ci yam ku ne ci da ngay sabablu rek ñaan yàlla mu yor ndam mu may la ndam moom liggéey na li mu a liggéey ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam rek point na ko jox cër rek def li mu mooy lool no amaat non yi moom yaa ma gën a xam ñoom moom làmb chaque jour ñu nga fa. combat bi ji amul mën a bëre dàq a bëre. lay dimbali nga bëree daan dem sa yoon leneen amut. mais li bari na signature contra xaw ma boog xaatim. mais coow li bari sa diggante ko lan la. Zarko champion la doon grand frère may ñu saat il faut coow li bëri daa fekk xale buy dem yoonam mu may ko saat kon il faut coow li bëri quoi. mooy loolu. Zarko nee na moo la fit. moo la gën a doon der. moo la dàq bëre. mais loolu yëpp na jël ba suur ba te dama koy daan ci kàttanu yàlla amut leneen. ci lépp laa ko teg. loo xalaat rek teg naa ko. mais gis na yaa ngi jógee géej léegi ñëw fii. non déggoo li ma la bu dee wàllum entraînement ak doole moom na dem toog xaar quoi. Ah waaw. kon loolu sama yëf la looy waaj rek ndef liñ daan def ma ñëw jàpp ko daan ko dem sama yoon point. taay taay bawol daa aye de. bawol aye kun ci jàpp dañ lay daan dem suñu yoon. waaye loo xam si dugubu ak matin ñu ngi koy ñaanal defal ko ndam te dina am ndam incha allah. waaw ñu ngi jaayaf maay kontaan. kilifa gi nuyu naa. maa ngi lay ziyaara. yaa ngi ci sant yàlla bu baax a baax ñu gis seen doom ñoo def open press di waat bés bu rëy. tey nga ñëw teew lan mooy faraloon sa teewaay. waaw xam nga suñu amee champion. ci suñu koñ. mu nekk xale bu engagé wu. bu déterminé wu bu bugg Dakar Plateau. xale yi bëgg ko. su amee bës ñun ñëpp dañu war ñëw teew. ngemb ko jox ko raaya Dakar Plateau gunge ko ba mu am victoire loolu rek moo waral suñu teewaay. naka nga ko gisee bi nga dugg see. mais dama am mbégte parce que il est en train d'offrir de la joie aux populations et aux enfants de Rebeuss te tey jii xam ne suñu koñ yi li xale yi manqué mooy loisir ak détente stress bi ak pression bi dafa bëri ci capitale bi xale yi dootuñu respirer amatuñu mbégte et loolu indi violence si seen dënn mais lu mel nii da leen di décompresser day tax ñu joxante loxo xam ne am na ñu benn objectif donc jàngale ci ñoom moo tax ñun mag ñi. dañu war ñëw gunge leen ñaanal leen. lan nga koy ñaax moom mi nga xamante ne day dem jongante ji. mais li ma ko ñaax wees na parce que li ma war def yëpp def na ko. dugg na xalwa loolu na entraîné na mag yi ñaanal nañ ko donc lu ñu koy def daal du du ñaax dañ koy yokk ñaanal. da mu dem jëli ndam li tey. na dem jëli ndam li ñëw Dakar Plateau nekk en liesse. est-ce que dina yomb. Quench euh, lay dajal. waaw xam nga Quench. Euh, jàmbaar la. jàmbaar la moom it mu ngi def lu mel ni li double moteur di def ca koñam mais xam nga sport jogante la mais foola la ax kaf ax ree li daanu rus waaw ku daanu di nga ruus mais ku daanu dangay ngay laxasaayuwaat ku daanu da ngay laxasaayuwaat ndax ndama nga ca kanam Saint-Exupéry moo ko wax mu ne le vainqueur qui fête sa victoire d'hier ñàkk na le vaincu qui prépare sa sa victoire de demain koo koy vainqueur bi kon boog ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di kii la ñu faral ndax kii mooy suñu doom kii mooy waa Dakar Plateau dañu bëgg mu indi ndam li ñu feet feet bu gën a rëy feet bi kontaan nañ ci yow. mais kontaan naa ci moom kontaan naa ci yow itam. jërëjëf. loolu waxu mbër la. dimanche yaakaar wax jarul muy bari waxoon naa ko dama koy waxaat sequma moom wax ju bari. li ma seex ak moom mooy arbitre ma duma ko daan ko billaay walaay. waaw li ma seex ak moom mooy arbitre ma duma ko daan ko. waa de dimanche yàggatul. yàlla na ko yàlla may jàmm may ma jàmm ba dimanche incha allah leer. loolu lay wax la rek loolu lay wax la làmb ñu boole ñu war a bëree. dañoo def suñu ay preuve ba làmb boole ñu war a bëree na bàyyi wax yooyu noonu. waaw làmb moo ñu boole waa Lamsaar rek. waaw laa moo ñu boole ñoom ñuy bëre ak ñoom rek du dara waaw. plateau lañ dëgg si parce que boo ñëwee Joppal président yi gis nga fi nekk gis fi waa Bawol gis fi waa Fass gis fi waa Médina gis fi waa Gueule Tapée fi waa Colobane gis fi waa Niayes Thioker bi yëpp xam nga fi Ndakaaru Dakar ba Cap Manuel fi ñëpp kon loolu moo tax ñun du ñu bëri suñu biir ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kon waa banlieue rek lañ mën a bëreel loolu moo waral tey ñii nii fu ñu dugg rek mën nañ fa duggaat loolu kese la. keroog ci signature bi ci biir Bantamba TV da nga ne combat bi di nga am dina dina am xeex dina am bëri est-ce que mën nañ xaar loolu. waaw loolu lu leer la li ma waxoon laay waxaat rek ñun ay ndaw lañ préparé nañ ñu war a pare liggéey nañ ñu war a liggéey amaana li ñu pare pare sax pour euh, combat bi. pousse Kouwén bu jëfee si ñun ñu teg suñu ngeen bu bàyyi bëre parce que dafa teg suñu bëre wax naa la ko sànq si biir wax Babacar booba léegi moom mi ngi génn di wa gisoo ñu fenn ñu génn di wax daa am fu ñu teg suñu bët wallahi azim du ñu tëdd sax boo koy xalaat wala ñu koy sikki sàkk moom te la set yaagatul la set lay leer incha allah rabbi dañ koy ñaanal jàmm nag ñaanal ko suñu bopp ba la set incha allah combat bi lan moo maanaam combat bi lan moo koy gagné lan mooy gagné combat bi est-ce que Double Moteur xam na niveau ko mën a yóbbu combat xam nañ ko bu baax. Ah. xam nga moo tax préparation bi sax bokkul ak yeneen préparation yi ndax combat ku ne xam na ne yàgg na def na at bu tegu presque deux ans ñu des si ay sacrifice nag laqatu sunu ruux def ci ay coono def ci xaalis bëree bëri ñu ci profité tamit di ci santaale ku ci mel ne Abdoulaye borom Somone. parce que tamit tyran bi ñu nekk foofu noonu yëpp mu ngi ñuy taxawu lépp lu war si ñun manqué wuñu nekk technicien condition yu bien di yëkkati xaalis bu weex di ko def si ñun ak maire somone bi Bokar Saaj xam nga ak ku ci mel ni tey jii ni euh, Cheikh Fall aluminium bu nekk somone mais moom nee na da nga dem ba somone dëkkam da ngaa ñëw ba dëkkam laa ko waaw loolu lay wax la rek ñëpp xamante fii ñëpp xamante man li ma xam bari ñu du ma ko wax yaa ngi dégg parce que làmb ñëpp xamante yooyu amul chance somone ay nit am yu baax yu may jàppale taxaw ma ma gis ñu ma taxaw ci combat bi jàppale ma ma leen di woo nag ci combat bi aussi tamit ku ci ni seen monsieur le maire ku ci mel ni Cheikh Fall aluminium ku ci mel ni euh, kii bi euh, ngay woon est xam nga ni ki ngay bëreel xeexkat la. est-ce que yaa xel xeex bi. waaw pare nañ ci lépp liggéey nañ lépp lu ñu war a liggéey ci côté xeex bi ci côté bëre pare nañ amuñu dara lu ñuy sikki sàkk ci moom ñun laajuñu ko dara leen lañ koy laaj mooy na taxaw. loolu gën lañ ko sant ci combat bi sant ñu ko leneen. boo gisee kuréel si nee na kuréel si nee na. ma ñëw kuréel si nee na mobilisé na 40 Dakar la mobiliser a liggéey baax ñi. monsieur le maire ngi taxaw est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel. monsieur le maire ngi taxaw. waaw loolu noonu li ñuy wax lu bëri. suñu papa bu a ngi nii. moom dañ koy sant bu ñu mel ni ay Baba Diop bu ñu mel ni suñu Baba Diop bii. boo nee mobilisation ñoom nag benn message boo xam ne daf ñu métti ñun ay doomu Dakar Plateau lañ ay doomu dëkk bi lañ ñu nekk fii ci gox suñu maire Alioune Ndoye bëri naa onze combats musuma may cent franc ah? waaw loolu dama koy wax mu koy dégg wax naa ko moom nag mu koy dégg jàkkaarloo naa moom wax ko mu koy dégg mu ne ma dina ma jox rendez-vous am ñu ma boole si ay nitam ma di woo mais dañ may dawal fem ndax man du ma toog ci ginnaaw kenn di ma taatu kenn dañoo nekk Dakar Plateau juróom bi yoroo bu ay doomu gox yi nekk ay porteur de voix mën ci réew mi dara kon ñun suñu jigéen ñoom dañu war a dooleel ñoom dañu war a dooleel yaa ngi dégg ñoom dañu war a dooleel mais gisuñu suñu si maire bi Aliou Ndoye man gisuma sama bopp ci moom yaa loolu dama koy message nag bu may laata bu mu dégg ko su ma jàppale dama war a jàppale su ma jàppale dama war a jàppale ñoom doomu dëkk bi laa ñii nag di ma jàppale ñii di ma jàppale bu ma leen yemale